dafa am lu dal ci sunu kaw ñun ñëpp mu doon loo xamante ne lu nu war a leeral la war ko wax jamono ñu xam ne li nu bëgg yóbbu histoire bi yeggu fa affaire pas-pas lañ ko bëgg yóbbu du affaire pas-pas du diggante laayeen ak murit du diggante tiijaan ak laayeen du diggante benn tariqa ci senegaal ak Laayeen diggante benn jëmm la ak jenn jëmm loolu la ñu leeral jamono ñuy siyaar bu baax di nuyu Sëriñ Muntaxa di ko yóbbante nuyoo ci askan wi yépp waaye itam di ko ñaan histoire bi mu taxaw ci ba lépp lu ci war mu def ko ci ndax li ñu nar a wax affaire layen ak murit dafay tas jamono te loolu amu fi ku xool sunu kër gi laayeen wax nañ lu ne dégg nañ lu ne loolu ñu tax ñu génn taal jamono waaye kenn déggunu kon nag bu lu mel nii amee ñu génn dafa jaabu nit ñi xam dafa jaar itam Sénégal ak àdduna bi yëpp xam li waral sunu génn génn bi waaye ñuy ñaan ñëpp ñu am xel mu daal te xam ne li ñu fi indi jàmm ak salaam kese la waaye itam ngir xamal sunu kilifa yu tedd yooyu ne leen lii jamono di wax nit ñi di ko wax ne wàllu diggante laayeen la ak murit loolu nekkul nekkul te du sa nekk ndax sunu kër gii ni mu tëdd defe naa ne sëy naa ma njoon bu daan ñëw it ci xabrom bii sëñ Fallou daf ko boole woon ak ay Baye Fall yoo xam ne ñoo daan xàll la mu julli ji dem na sax ba dañu ne woon daf leen maye woon ñu nekk ci dëkk bi bu sëy naa ma njoon soxlaa rek ñu taxaw sunu diggante ak murid yi nekk yow ñun ñëpp ñu ngi jàmm lu nu xew la dañuy dem ñoom lu nu xew la dañuy ñëw kon amuñu benn problème ak benn këru diine isaa nag suñu rakam lii nuy wax quartier bi ñoo ko moom du mbiru diine ji mbiru quartier bi la ñu xam ne nag du nu bàyyi kenn di fa tuutam du nu bàyyi kenn di ko natam du nu bàyyi kenn di ko doyee bu dee mbokk la am na ko bu dee ay taalu bi am na ko bu dee bakkan rek la jaay la jaay pour faj ko balaa benn taalu bi taxaw man maay njëkk a taxaw jëre ko kon dañuy wax rek ne war ma la ko xam li muy xeex war na ko xeex ndax bàyyam na ko xeex ba tollu 364 hectares yëpp dox état Sénégal tuddeewu ñu la fa tali du marché buñ la fa tuddee du école buñ la fa tuddee du dara luñ la fa tuddee kooku soxla wu woon àdduna kon bu dee xeexal yoof yoof lay xeexal xeexalul laayam laayam soxlaawul benn suuf ci état li yoof soxlaa rek te bëgg ko ngor soxla ko te bëgg ko wakaam soxla ko bëgg ko ci yitte yooyu la ne kon ñu ngi wax ñëpp ne leen combat boobu combat am la tëj la pour continuer ba mu mat sax ñu bàyyi ko bi ci topp muy li wax di ko dénoncé ci Macky Sall la ñu Macky Sall la ñuy wax wax na beneen théorie wax na beneen mbindee Macky Sall daal la ñuy wax askanu laa yéen ñii ci pénc mii mere nañ ko trop ndax Macky Sall defaluñu dara dara defaluñu ko du benn bourse bu mu jox xale ñu jàng du yu mu leen jox du dara lu mu leen jox suñu période bii la ñu ñu tàmbali ko maanaam cinq ans ñu bàyyi tamit muy taxawaalu ba tey ba xale yi jugee man maa njëkk a ne leen déedéet loolu la dégg naa danka geer danka nangam danka nangam ba ma toogeeg ñoom xale yi toog ma wax ñoom ne leen période kat xale yi maa leen téye wax leen leen lu leer. bés bu nu jógaatee ci combat taxaw man maay jiitu ànd ak ñoom ci xeex boobu jiitu ànd ñoom ci xeex boobu ñuy wax Macky nag lan lan ko def nan ñun dañu bokkatul ci dëkk bi walla ñun dañu bokkul ci ñi nga xam ne war nañoo laaj wala ñun dañu bokkul ci ñi war a wax ndax ndakaaru lu ñu fi dogal war nañ ko mën a njëkk fii waaye gën ñuy tëb duñu fi ñëw ba mu paase bu nu soxlaa bëgg toogaat ci sunuy tànk loolu duñu ko nangu askan wépp taxaw na ñu bëgg nag di ko wax moom Macky Sall mu xam ne askanu yoof laa yéen mere nañ ko torop mere nañ ko torop te am na loo xam ne bu fa yeggee dina doon loo xam ne kenn ñaanu ko yàlla ñun nag xame na ñu yar ba pare duñu saaga kenn du nu xas kenn waaye li nu bëgg war na cee mën a taxaw sunu période bii la noonu bu nu defarul dara nanu ko defaral mais Macky Sall mënoo dox ci dëkk bi ni lii moo ko fi def man de gisuma ko keneen ku ko gis na wax dara bu fi ku nekk ay sant jërëjëf di lu mu ñu defal defalu nu dara ba nu koy sant kon nag nun taxaw nanu li nu war ci sunu pénc mi dinañ ko def fi may tëje nag mooy ne mayatunu picc mu naawee laayeen sax nit jàpp ko dindi benn dunq ci moom sàkkantumaa nag ku bokk ci kër gi ab locataire sax mayatunu kenn di ko ci dëkk bi te na wax ci dëkk bi mbon mbon gi nekk ci ginnaaw jàmmalay ba Cambérène na ci wax jëli ko fi fii dëkku diine la te amul fu muy yamale suñu dëkk bii ne fii lay yem laa yeen yemul fii ñu ko yamale laa yeen ba cité bële ba biir géej ba Cambérène laa yeen a ngi fi kenn duñu ko yemale dañu bëgg nag mu dégg suñuy kàddu xam ne mere nañ ko trop ñun soxlaaw ñu xaalis ci moom soxlaaw ñu dara ci moom ñu ngi lekk ñu ngi naan ñu ngi nelaw doy na sëkk mais nag li nu war te muy suñu yëf war nañu kaa jox nag te lu mu mën a nekk ak lu mën a xew Macky Sall na gëstuwaat jeunes yi laayeen yi waaye Macky Sall tegul jeunes yi laayeen fenn te laayeen sax laay wax tegu leen fenn tegul fen waa laayeen te loolu nag dafa ñaaw duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg jeex na tey jii na ci wax ci problème bi isaa mii nag ak ku dul isaa bëggatuñu sax ku yëkki kàddu yu ñaaw di ko wax ci ñoom bëggatuñu ko te dootuñu ko may kenn li fi nekk daal mooy nanu gestuwaat waxtaanaat ak njaboot gi jox nu suñuy gëdd ak suñu cër te lii na ko yeggali bu ko mënul na ko toj ton ni lépp dem tuuri ñun mën nañ def lu raw lii mu fi def bu mënul na toj lépp yóbbu waaye nun dinañ taxaw taxawaay bi nga xam ne taxawaayu quartier bi la diine ji ñu leen di waxal ñu ngi leen di waxal mais ñun jeunes quartier bi dinañu taxaw ni nu war a taxawee ba lépp loo xamante ne war nañu ñun dinañ ci euh, mën a xar suñu tànk tubéy kon daal coow li coow lépp Macky sàll la te li ñu koy wax nag moom lañ ko yónnee yónneewu ñu Samba yónneewu ñu ma Demba waaye bàyyi bàyyiwaat xel na waxtaanaat ak njaboot gi na dégluwaat njaboot gi. te na joxaat woor ma sunuy kilifa amuñu lu dul sunuy kilifa nag di ñaanaat bu baax xale yi na ñëpp ànd ak dal nanu bàyyi wax ji yëpp nanu am dal te xam ne ñu ngi ci xeex boo xamante ne bu nu waxul sax ñu ngi jëf te insha allahu ñun ñëpp dinañu àndandoowaat xeex xeex boobu damay yemale samay kàddu fii di jox mbooleem ndaw ñëpp bu guddee bu ñu jullee gee ba pare si buntu jàkk ji ñu waxtaane nag li ci des incha allah ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi sant ñëpp asalaamualeykum aleykum rahmatullahi taala wa barakatu